dafa dafa dafa dafa dafa yéeme. ni mu demee dafa yéeme. ndax fekk ñi mu fekk fii ci naara si. maa ngi doon tiisu lool. bëggoon def jàppoon ne fekk ngeen fekk ma fee. moo moo moo moo moo muy gënal moo muy gënal. ci fekk bi. waaye nii la ko suñu borom dogale. bi bi amee nag. te sëñ Aliou mii wax xaas ji xaas ji dafa am lu ko dëggal ci lu doy waar ndax fii barab bii xam naa ne eh, fa ma fa ma dëddoon ci biir mbaar mi la nekk ma tëdd fa sëñ mel ne mel ne ngaaj ma nga damaa nekk ci ma aw aw sàkkin nii mm-hmm. eh, nga jaar ne mm-hmm. ba ci bunt bi nga ñëw mm-hmm. dañ ma gis tey mu jaar ne ñu ci bunt bi mu ñëw jox ma jox jox ma ndox ma ma ne groupe sukk ma ne groupe sukk jox ko ñaari loxo jox alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin waaye sama xeer na yar damay fàtt xanaa noonu mbaxam sama xeer na yar ci mbaxam ma ma benn loxo ma dundee mbaxam mu rëcc loxo benn ma xool fi naa ko mu jaar fii ci barab bii ci barab bii bii barab bii barab bii fii ci wóor na ma fi ma doon génn génn mbaar fi ma nekk yi génn mbaar xaw wallahi ay mbakke ndokke noonu rek ndokke noonu ndokke noonu ndokke noonu loolu xam nga loolu fa te fekk nii mi ngi ma diisoon ma nga ndax ndax dama dama ñëw rek ak coono coono coono doy waa ak coono ma ne ma laa da def ma ne naa dal si ay fan door da dem ndax damay ñoŋal kër ga. ginnaaw su ne su kuréel sëñ bi la. dama koy ñoŋal bañ mbooloo mi di ko di ko moo tax may damay nekk ba mu jege ma door faa dem ba loolu nag ci laa nekkoon dama moo tax ma ñëwoon fii ba bi ngeen ñëw sax jàpp moom nii la dem waaye bi nga xam ne ñëwee nga dem bu nii ma ma ma ma tàngaay wax ma jàppoon nag ma fee fee gën. loolu ci sama xel na waaye waaye waaye nag waaye ma gannaaw ma xoolaat seetlu loolu nekkate nga xam ne sëñ bi ba nga jox ko wallaahi naa ne moo moo jaar ne ñëw dugg ci bunt bi Mbàkke damaa bëgg jox gii ma lay jox loxo ma joxe laa joxe laa leen ko murid yëpp murid yëpp rek moom moom lii moom lii moom moom ndax moom sama xel ci loolu waaye nag bi jotaay bi demee euh, ma bëggoon mu gën a yaatu mu nekkoon mu fekkee mu tiis ma ci ma xol tuuti baaf sëñ bi wax xaas ji sama xel door a dem ci loolu xam ne xaas ji nag kon loolu kon loolu kon ndekete moom mu nga noonu rek la loolu loolu daal la demee jaafee jaar bi buntu bi jox ma loxo mën a juróom fukk jox ko ñaari loxo di di su jiw ci loxo bi di wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah waaye sama xel ne yar na ci mbaxana mi may fanaanoo mu mu mu dindi mbaax nañu. moo ci loxoom dem ma xool ko mu jaar dee. fii fii ci barab bii barab bii ndax lii moom yéem doy na waar yéem na. waaye nag ñoom day day ab tàmbali rek la ab tàmbali rek la. moom de waaw moom de doy na waar moom de moom de doy na waar man de dama xam sama ni ma xeeboo. ñu koy mbàkk leen rek dimbali leen rek am ndax ci liggéeyal sëñ Tuubaa sa jëm ji ci ci waxtu wii la sëñ bi dénkee yoon bi nga war ko ci liggéeyal te ñëpp am yéene ànd ko ak yow ñoom bu leen ci kenn man kenn kenn du leen ci yàlla nga gisee sëñ bi kenn du leen ci man ma waaw waaw ne ñoo ñoo ci jiitu ndax liggéey bi liggéey bi liggéey bi rek la liggéey boobu lu ñuy lu ñu bëgg liggéey la waaye liggéey bi mi ngi fi mosulee jóg te yéen a ngi woon ci liggéey bi kon kon kon kon kay moom moom dañ leen a fekk ci liggéey bi liggéey bii dañ leen a fekk ci liggéey benn liggéey bi rek la te mosu leen ci jóg kon kay liggéey bi moom lu yees ñëpp ñu dëgg ma bëgg nga bi da nga da nga da bëgg nga demee sañ yombal dañ koy dund nii ngeen ko defee dund gi rek dund gi rek waaw dund gi rek wala xasida moo moo moo mooy dundal bi waaw waaw